ay ca murit danan dem ba nga xam ne muri dëgg du dégg wolof muri dëgg du dégg wolof te loolu nan ko bàyyi xel bu ngeen bëggee mu leer leen mooy fi mu ne jullit dëgg du dégg arab Pakistan ñi gën a gëm yàlla ak lislaam lañ duñuy dégguñu arab du ñuy naar Indonésie du ñuy naar Malaisie du ñuy naar Iran du ñuy naar nun ñii duñuy naar feneen duñuy naar te dëgg dëgg lislaam du ti naar ñoo ko doxal te nañ ko doxali ñëwuñu ba màkk ñu nangu nguur ga ñëwuñu dina nangu ko dañoo dem dañoo ñëw tibb tibb ci lislaam la yàlla soxla dem fañ dëkk nag di ko doxal na nan wattu nag loolu dal na di nattable di gam-gamle di werante te sëñ Tuubaa moo ne danan dem ba murid dëgg du du